dina compliqué trop. dina compliqué. dina compliqué. dina compliqué ci kay. ndax yaa ngi naa compliqué kon. maa ngi gis rek mu ngi daw parce que sañul taxaw fii. yii lay def parce que non oh, tey maa ngi fii. mais bu leen xam bu leen xam. yii lay def. Ah, Kheucha. waaw dafa am loo xam ne. man personnellement. waaw maa ko laaj gars yi. waaw c'est-à-dire dafa am ñett ñoo xam ne. ah, ah il faut ñu defal ma contraire li ñu defoon mais en 30 secondes. affaire yi jeex. non jeex na. taa bee jeex 30 secondes. noppi naa 30 secondes. parce que nekkoo fi woon quoi. non non non du loolu. parce que dañoo am problème ñett ñooñu dañu ex aequo. ah dañoo ex aequo. ñett ñooñu dañu ex aequo. waaw kenn ki dafa traduit bi ma koy déglu fii. ok alors mu bëgg mu def lu moderne en 30 secondes. d' accord keneen ki moderne noonu mu def lu traduit en 30 secondes. ah loolu moom mënuñu ci dara Mamadou Julie foo ñu def ko 30 rek 30 30 30. ah ah kana kan la kana kan la Padros. waaw. comme ni mu ko waxee musique suspense si on la baisse. Ah. comme ni mu ko waxee. waaw dafa am ñett ñoo xamee. dañoo ex aequo waaye ñett ñi ñun moom di jury bi bi ñu xoolee dama gis ni ñoom ñett il faut ñu am lu ñu leen départager d'abord Ndeye ci kanam. ok Toutou ci kanam. ok Ida euh, ci kanam. ok Kheucha. maintenant waaw. Euh, ñett ñi ñoom ñooy les trois premiers. ah donc ñii ñooy les trois premiers. trois premiers. mais na ngaa teel a joxe waay. non joxe ma joxe ma joxe ma. non non non non non non non c'est-à-dire ñii ñii dañu am problème ñun. waaw dañ leen bëgg a départager mais ay trente secondes trente secondes trente secondes. d'accord mais xamaguñu kuy gagner. ok xamaguñu. alors pour man ana jéer jéer ngoone lu moderne ngay def en trente secondes xëy la waxal ma ko mu def ko. léegi nag ana micro rek yi jox ko micro. Ah, ah. vas-y boo leer na boo juumee nag. 30 secondes rek nga am 30 secondes. 30 secondes s'il vous plaît. yokkal leen ko tuuti micro. boo xamul moderne maanaam bul way cosaan. bul way cosaan waaye leneen lu dul cosaan dégg nga yaay sama jëmma yaay leeral guddi nga defoon voilà tradi tradi nga defoon loo defoon. moderne nga defoon yóbbu ñu ci tradi on est. We love Maasai. We love. Barcelone 2-2 te Thiès moom lu mu defoon moom lu mu defoon loo defoon xaadi lay def ah modèle la defoon donc euh, fais-nous une chanson euh, en traditionnel. tax lii ma yor doy na ma lii ma dugg leer na ma merci alors Patros alors Tros Kaili merci beaucoup si vous nous regardez un peu partout au Sénégal et dans le monde nous vous remercions et nous vous disons merci alors sans plus tarder C'était la finale de Kaikova édition Et bien sûr, en troisième position, pour ne pas, pour ne pas vous laisser le temps d'imaginer, nous allons donner la parole véritablement à mon ami et très cher Patros pour nous dire qui est la troisième personne qui a remporté véritablement les prix ici présents. Quai de Pomme Quai de Pomme en troisième position Merci beaucoup Quai de Pomme est en troisième position. Alors, en deuxième position, qui sera qui sera admis d'office dans le label de Debest Production. Il s'agit de qui, Monsieur Patros Neymati Neymati en deuxième position Et véritablement, pour terminer en beauté, Monsieur Dame, j'aimerais, j'aimerais, eh, eh, yëkkatil leen ma seen ay téléphone portable ci kaw ngeen taal seen lumière ma xool nous allons immortaliser ces moments nous allons immortaliser ces moments voilà c'est beau allez-y c'est beau allez-y c'est beau allez nous allons encore attendre aha ah. lumière wàññil ma lumière yi immortaliser les moments pour que doon ñu mën a xool image yi xewoon Malibu s'il vous plaît sortez les téléphones portables et mettez vos torches. Qui sera leur élu Waouh Hein Ça sera chaud, hein Bess, viens Bess, viens Un mot pour Bess Un mot avant ñuy annoncer ki nga xam ne moo jël Kaay Cover 2024. waaw Kheucha maa ngi lay di gërëm ñëpp ñu fi teew ah. di gërëm équipe bi di gërëm 2S. commencé ko Chipérella Ndiaye madame Ndiaye ak équipe The Best Production ñoom Feft Kira yow Fichar ak kii ñëpp ñi si jàpp maa ngi leen di gërëm di gërëm sama soxna bee toog di gërëm ñëpp donc li may wax lenn la kaay kooba fii ñii dañoo am problème problème bu sérieux la ñu am problème bi mooy ñii ñëpp dañoo mën a way ñii kenn niilu si te concours bi dañ ko def pour aider les jeunes ma rappelé leen ki jël concours bi am na ay cadeaux yu ñu koy jox ki ko jël dina am chèque cinq cent mille dina am ay cadeau dina am ay bon dina am production album ak benn événement bu mag boo xam 2S ak The production ñoo koy koy defal. ki si topp ak ki si toppaat ak ñi si toppaat ñëpp The ak The Best ak 2 production ñoo leen di produit ku ne benn single officiel clipal la ko defal na ko génneel la ko promouvoir la ko ñoom ñëpp ñoom ñëpp donc donc ñoom ñi fi nekk ñëpp fii eh. kenn amul perdant amul amul kii mais concours faa mu am vainqueur concours faa mu am ku gagné faa mu am ku toog donc kontaan nañ si yéen xam nga leen wax ne nag le 2 ah Magic ku bëgg a bokk kaay Koba saison 2 mën nga ñëw Magic le 2 incha si la def casting bi jërëjëf. Alors, pour terminer en beauté, messieurs, dames, donnez d'abord les cadeaux. Remettez-les cadeaux. Vas-y, toi. Vas-y, les cadeaux. C'est bon

Hallelujah.